mu nekk euh, l'émotion ñu déglu aussi euh, Mamadou Ibra Kane euh, nekkoon étudiant ak collaborateur Mame Less Camara di nuyu xale yi góor yi jigéen ak jigéen di leen nuyu yéen yëpp ah di wax ne inna lillahi wa inna bu ma toogee fii di wax ci Mame Less Camara bu ma sañoon ni témoignage bi may def mu nekkoon ci bi muy dund waaye suñu borom moom rekk moo sañ def lu mel ni dañu nangu ko ñu sant ko bi ne alhamdulillahi rabbil alamin di ñaanal Maam Less Camara yal na ko yàlla yërëm te xaare ko ajal ndaxte foofu lañu war a tàmpale mu toll tey dafa soxla ñu ñaanal ah témoignage nag mënul ñàkk ci lu mel ni ni sama rakk yi jarbaatam am euh, Yoro Mangara Babacar Fall ñëwee na ma Mamadou da ngay ñëw témoigne ma ne ah ndax njaboot yi mën ndax itam suñu corporation bi mën na la bu ma xoolee ñi nekk sama kanam mën naa ne je ne suis pas forcément le mieux placé pour wax au nom de corporation parce samay mag di fi toog bu ma waxee. asma dem jaay wax moom moo duñ jaay si lu géej daan kase Abdoulaye Ndiaga Sylla ma jàmbal jaay El Hadj Kase Makhtar Sylla Racine Talla Babacar Ndiaye Abdoulaye Ndiaye Sadakat Ibrahima Souleymane Ndiaye di nga xamante ni maa ko mi ko Oumar Diouf Fall Momar Wade Samba Bacci ku lim jóg xam na yeneen mag yu nekk sama kanam mais ay mag aussi yu jigéen Jatou Cissé ngay Rokhaya Mbodj Seynabou Mbodj ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais aussi ma jàkkaarloo des histoire professeur Serigne am sa aussi di des benn mbokk maa ngi gis Mamadou Diop Decroix la figure représentative de la classe politique sénégalaise te loolu moo ko wax xam naa Mamadou Diop Decroix moo ko naan mais ma jàkkaarloo messieurs les ministres Seydi Gueye ak Yoro Dia Yoro résumé na suñu àndandoo ak Mame Less su ma nekkee di lim jeune génération que Mame Less Camara a couvé et couvert de son immense professionnalisme, de sa grande générosité, de son humilité infinie, de sa rigueur, de son intransigeance avec les faits, mais surtout avec le travail bien fait ñun de sama xam ne bi ñuy ñëwee di lancé Walfadjri FM ay tout tànk la ñi ils de sortir de l'école de formation du CES d'autres étaient encore en formation Mame fut un maître rigoureux il fut d'un père aussi pour nous quelque part. Parce que nous étions si jeunes quand il nous a pris sous son aile protectrice. Mamles nous a tout appris de ce métier, de professionnalisme, le respect des faits, le respect de l'éthique et de la déontologie. Mais si on me demande qui, qui est Mamles Camara, ou qui était Mamles Camara, je, je réponds tout simplement. C'était le journaliste. C'était le journaliste avec un grand J. Je me demande d'ailleurs si, avec la mort de Mablès Camara, si finalement le journalisme, n'est pas mort. Parce que Mablès était le journaliste intégral. Il était attaché aux faits dont il respectait la sacralité, mais c'était un fait analyste. un redoutable intervieweur. On revient en mémoire son émission culte face à face de la RTS. Je vois l'aîné aussi, Ibrahim Sané, devant moi, qui acquiesce. Effectivement, c'était un redoutable intervieweur, mais, mais respectueux de ses invités. Mais combien d'hommes politiques et de femmes politiques, de personnalités de la société civile, Mamles Camara a révélé dans ce pays. Et pourtant, lui, il est resté dans l'ombre. Il est resté humble. Il n'a jamais bombé le Il a vécu dans la discrétion. Il est parti dans la discrétion, dans la dignité et dans l'honneur. vous m'excuserez ce n'est pas un reproche, encore moins une Mais j'ai envie de dire que nous n'avons pas su rendre hommage à Mamles Camara de son vivant. J'ai envie de dire. Il faut que nous apprenions davantage dans ce pays rendre hommage aux filles et aux fils qui ont honoré ce pays pendant qu'ils étaient en vie. Dans l'heure, jeune homme qui est à votre avis, quel hommage on peut rendre à Mangas Une question comme ça à pour point, je n'avais même pas de réponse, mais j'ai envie juste de dire oui, on a, on a raté le coche, Mais Mamles s'est rendu lui-même hommage. Mamles au panthéon des immortels du jour. Quelqu'un l'a dit, c'était un journaliste intégral, mais c'était un combattant des libertés. de la presse, liberté d'expression, un combattant de la démocratie, un combattant de la République. un combattant du développement du Sénégal. Retenons de Mamles Camara qu'il ne fut pas seulement un monument du journalisme au Sénégal. Il le fut pour toute l'Afrique et pour tout le monde. Voilà, maa ngi jéggalu encore une fois di ñaanal Mamles Camara yàlla xaaree ko àjjana suuf si woyof ci kawam di déggoon suñuy njaal jaboot bi ak xaj yëpp ak mboolemu Sénégal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum